bismillahi rahmaani rahiimi ihdi jamiana siraat almustaqim wa bi sahihin kun lana bila saqim laka xitaabi yaa qarib yaa mujib yaa man bihi laa samani xayru ajib mbokk yi jàkkaarloo ci ñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu su ngeen déggee xës day am solo yooyu ngeen xam ni ndigal bàyyikoo na fa mu baaxoo bàyyikoo ci sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed moom sëriñ Mbacke soxna loo yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ñëw ci buntu kër boo xam ni ndigal yàgg na fi jëfe ndigal yàgg na fi di kër sëriñ Alamine Gaye moom Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ci taawam bi di jëwriñam ji nga xamante ni taxawaayam ñëpp ràññee nañ ko di Cheikh Mouhamadul Moustapha Gaye moom sëriñ Alamine gay yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ak mbooleem ay rakkam ngir woote woote bu am solo bi nga xam ni bisum ñaan la bisub sant di bisub fàttaliku di bis bi nga xamante ni sëriñ Moustapha Gaye ak mbooleem ay rakkam ñoo koy defal ki nga xam ni mooy seen wayjur di sëriñ Alamine Gaye ak mboolem njaboot ak sëñ Modou Lamine Gaye gépp moo tax ngir woote woote boobu ñoo ngi fii ci kër sëriñ Alamine Gaye feggoog ki nga xam ni moo di xalifaam tey di Cheikh Mouhamadul Moustapha kàddu gu njëkk gi den ko yëkkati jébbal ko ki nga xam ne moo di sëriñ Sohay Bulo sëriñ Sohay Bulo moomu mooy wax ci turi sëriñ Pape Gueye mi nga xam ni mooy jëwriñu daayira bi ginnaaw ay kàddoom ñu daal di yëkkati kàddu gi jox ko ki nga xam ni moo di sëriñ Basirou gay sëriñ Basirou gay nag mooy wax ci turu njaboot ak sëriñ Alamine Gaye gépp ak wàccaayu bés bi niñ ko fas yéene tëddee incha allahu rabbi ginnaaw ay kàddoom jox kàddu gi Serigne Cheikhouna Gaye mooy wax ci turu mbooleem njaboot ak Serigne gay Lamine Gaye Firdawsi gépp pare itam deen jébbal kàddu gi nga xam ne moo di Serigne Alamine Gaye mooy wax ci turandooy mbooleem turandooy Serigne alamin gay yëpp ñoom itam seen taxawaay naka jekk rafet ci bés bi moo tax ñu fas yéene yëkkati kàddu woote woote ba am solo boo bule Mor Faati Gaye moom itam mooy wax ci turu mboolem dongaay laxasaay yi nga xamante ni ñoo jaar ci kër Serigne Alamine Gaye ca seen taxawaay ñoom tamit ci bés bi am solo trop. aw kàddu yooyu nag di leen ki nga xam ne moo di Serigne Alaaji Diop mooy wax ci turu mboolem daayira suñu paree jibal kàddu gi soxna Awa Ndiaye mooy wax ci turu ki nga xam ni moo di soxna Ndeye Gaye ak soxna Musli Gaye ak ki nga xam mooy soxna Mbène Mbacke suñu pare ñun ñëpp nag àndandoo jébbal kàddu gi ki nga xam ni mooy jëwriñu Serigne Alamine Gaye mi nga xamante ni olof yi dañuy faral di wax ni baax am na solo waaye bokk na ci li gën a baax nga dem bàyyi ku baax su fekkee ni danga dem bàyyi ku baax lépp loo fi bàyyi woon su dee naa la dana ko àggale su dee ab suux ab njëmbata dana ko suuxat su dee ab sampa dana ko rokas ca ñëpp xam nañ ñettoo yëpp dal na Serigne Moustapha Gueye mile kon moo tax ñu fas yéene yëg yëkkati kàddu gu njëkk gi jox ko Serigne Soy bu ci turu Serigne Pape Diop Serigne Soy bu bisimilah. kàddu yi may yëkkati nag maa ngi koy yëkkati ci turu Alaaji Mor Gueye mi nga xam ne moo nekk ci bopp daayira yi kenn nattablewul ne liggéey bii nga xam ne ñi ngi koy amal fii si kër sëñ Alamine Gueye di ko ko jëfal ci turu sëñ Moustapha Gueye liggéey boobu ci la fas yéene soññee xam ngeen ne bisu fàttaliku ak bisu soññee ni ñu ko waxee bis la boo xam ne am na wàccaay yu ci war la xam ne ñoo aju ci kër gi rawatina ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew alaaji moor mi nga xamal ñëpp ne nañ waaj nañ daan waaje ngir ñu xam ne liggéey bi tànki kanam laam waaye amul tànki ginnaaw kenn ku ci ne fexe ba la nga ci defoon daaw ren nga fexe ba ful ko loolu kon mooy li nga xam ne moom la waxoon ne dana ko soññ mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootu kër gi waaye nag duñ fàtte ki nga xam ne moo fi toog toogaay bi sëñ Modou Lamine di sëriñ Xaadim Gaye ñu ngi koy ziyaare di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu la ñuy ñaanee soxna Bintu Gaye it mi nga xam ne moom it moo mag ci kër gi ci soxna yi kon wuñ magi taalibe yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Alamine ñoo ñëpp Pape Gueye nee na mi ngi leen di woo ci liggéey bi di ci woo dëkkandoo yi di ci woo xarit yi am di jàmm yi waaye daal mi ngi xamal waa kër gi liggéey bi sunub liggéey la kenn ku ci ne na takk laxasaayam te xam ne bis bi bu ñëwee loo mën ak loo mënut mooy li nga xam ne moom lañ soxla ci bis bi bis bi nag ki ñu koy defal wa kaana abuhuma saaliha jëmm ju sell joo xam ne lam fi nekke woon ku dem ma dem ku déw ma dem la doon doxe ba ñibbi àjjana wéet mosu koo teree xeex benn bis kon kooku mooy suñu àll mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku waaye daal mi nga xamal waa kër gi ci góor jigéen mag ak ndaw ñu xam ne bis bi agsi na kenn ku ci ne la nga ci def loo man ak loo mënut ñu takk laxasaay ba bis bi bu ñëwee raw ni nga xam ne noonu lañ ko defee woon daaw kon kàddu yooyu la sëriñ alaaji morgue ne bu ñu fi agsee nañ ko jotal di ñaanal sëñ Moustapha mi nga xam ne di jàmbaari sëñ Alamine di koo xam ne guddeem ak bëccëgam yëpp ci day xencu ci loo xamante ni li fi alamin bàyyi woon ci loolu lay xëy ci lay gont kon loolu mi ngi koy soññaat ñëpp ci ñu takkaat laxasaay rawatina waa bitim réew ñu xam ne bis bi agsi na ñuy jox ñëpp dig daje le 16 mars di jox ñëpp dig daje le 16 mars wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi tedd yi dégg suñuy kaddu ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaqa moom cheikh Mouhamadul Bachir mi toogee jataayub cheikh Ahmadul Xadim di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér te àggale naal yi nga xam ne moom la naal lépp bëgg ko liggéeyal suñ tubaa te ànd ko ak njaboot gépp euh, di jël suñu kàddu nag di wax ci turu njabootuk cheikh Mouhamadul Amin gi di sëriñ Alamine Gaye euh, di ko wax ci turu sëriñ Mouhamadul Moustapha Gaye mi nga xam ne mooy xalifab sëñ allamin ci yëgle bis bi nga xam ne mooy bis bi ñuy defal suñu wayjur wa sëñ Alamin di ko yëgal mbooleem ñi nga xam ne ñooy mbokki jullit yëpp di ci jiital njaboot suñ tuubaa di leen ci woo di leen xamal ne bis bi seen bis la di ko yëgal ñi nga xam ne tamit ñooy seex si di ko yëgal donga yi euh, ginnaaw loolu tamit ñoo ngi koy yëgal yi nga xam ne ñoom lañ bokkal kër Cheikh Mouhamadul amin gay gi te Serigne Khadim Gaye nekk ca bopp ba di si Cheikh Mouhamadul Amine di ko yëgal tamit ba tey suñu mbokk yi nga xam ne ñooy suñuy mbokki jëmmooy euh, di ko yëgal Serigne Khadim Gaye mi nga xam ne moom it mooy xalifab Serigne Moustapha Gaye mi nga xam ne mook Serigne Alamin benn lañ woon nga xam ne lépp loo xam ne euh, lu xew ci kër gi la mel na ne foofu la xew lu xew foofu tamit mel na ne fii la xew ñoo ngi leen ci woo bu baax di leen xamal ne bis bi seen bis la di ko yëgal képp koo xam ne daal euh, mbégum Serigne Touba sa mbég la euh, di leen wax na nag bis bi mi ngi tolloo ak gaawu fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars euh, bis ba ko jiitu tamit di aljumaa ja danañ fi def waxtaan woo xam ne moom la ñuy waajalee bés bi kay taxawee waxtaan woowee di Serigne Mamour xam le diine. incha allah taala buñ demee ba wenteer jot ci waxtu gee dana fi amal waxtaan wu am solo woo xam ne dañuy soññi taalibe yi fàttali leen euh, waajalee ko bés bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal muy gaaw ja ci topp. Euh, bis bi nag buñ xëyee comme niñ ko baaxoo defee rek danañ jàng alquranul karim jàng xasaayidu si ahmadul xadim yi def euh, istighfar salaatu ala nabi ak lépp loo xam ne des koy defal ku nekk barsàq mu koy soxlawoo foofa ci ay ñaan. des na ko taxawee incha allah taala di ci sàkku lépp loo xam ne nit mën na ko ca te muy luy taaral bés ba luy bégloo ki ñu koy defal ñoo ngi koy ñaan képp koo xam ne dégg suñu kàddu mu taxawee loolee. Euh, ndax bis bi moom ki koy defal ñëpp xam nañ ko yaakaar naa Serigne Alamine Gaye moom bu ñu ko waxee day mel ne moom euh, lu universel la ko universel la woon koo xam ne moom ñëpp ko bokk ndax ak mbaaxam ak waar wi mu doon bay ci toolu Serigne Touba bi ak. Euh, képp koo xam ne gisoon na la nga doon koo xam ne ku bokk ci njaboot Sëriñ Tuubaa nga taxawaay bi mu daan am ci yow mbëggeel gi daan am ci yow euh, tax na bu bisam ñëwee daal euh, lépp loo xam ne lu koy taaral la dañuy jàpp ne rek képp ku bokk ci njaboot Sëriñ Tuubaa sa bés lay daal di doon bu ko defee ñoom ñëpp rek ñu ngi leen ko yëgal leen ci woo leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare jiital nuyoo bi ak siyaare bi yëpp saahibul fadila cheikh mohamadul muntaha ibnu cheikh mohamadul bachir xalifa général di murit ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal tawféex ak njabootu sëriñ tubaa gépp ak njabootu mboolem murit yëpp di nuyu xalifa sëriñ mohamadul Lamine Gueye di sëriñ xaadim Gueye ak njabootu sëriñ mohamadul Lamine Gueye mu baax ma borom di wax boro euh, kilifa jataay bi nga xam ne moo ñu fi dajale muy sëñ Mouha sëñ Mouhamadul Moustapha Gaye xalifa sëñ Alamine Gaye di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal tawféex euh, sëriñ Xaadim Gaye xalifa sëñ Mouhamad Lamine Gaye ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen soññ di boppam di leen soññi ci bisub sunu maam ju baax ci Cheikh Mouhamad Lamine ñu fas yéen cee fàttaliku jëmm ju baax ci suñu baay bu baax ba sëñ Alamine gay nee mi ngi soññ boppam leen ci soññ bu baax kenn ku ci nekk taxawaay bu rafet ba nga ci daa taxawaa na nga ci taxaw taxawaay bu gën a rafet booba nga ci daa euh, di di nuyu maanaam di gën a soññi euh, njabootu sëñ Mat Lamin Gaye nga xam ne mooy ay sëtam ak ay sëtaatam euh, kooka nag ka nekk ca bopp ba soxna bi ci jigéen ñi soxna Bintu Gaye ñoo ngi koy soññ bu baax ak mboolem ay rakam bu baax taxawaay ba nga xam ne daa nañ ca taxaw nañ taxaw taxawaay bu rafet boobu di mbowoo waa kër sëriñ Mañaaw Gay ci njiital sëriñ maam Cheikh Gay moom it taxawaay bu rafet ba mu ci doon taxaw ak taalibe yi nga xam ne ñoo féete woo foofa seen muy seen buntu ci kër sëriñ ca taxaw taxawaay bu rafet boobee di nuyu ak uh, woo waa kër sëriñ naa Gay nekk ca bopp ba moom it taxawaay bu rafet bañ ca doon taxaw it nañ ca taxaw mook uh, ay rakkam ak ña féete woo moom foofu noonu di nuyu njabootu soxna Aminta Gay uh, moom it Euh, ñoom it ñu taxaw ci dañ ci daa taxawee ñu soxna safeetu tamit ak soxna jëmb ñoom mbooleem ñi nga xam ne ñoo njaboot sëñ Mat Lamin Gay di ñi nga xam ne mook sëñ Lamin Gay ak euh, ak ñoo bokk ngayeen gi muy waa sëñ Baara Fatim Mbooj euh, sëriñ Nasir Gay nekk ci bopp ba ñoo ngi koy nuyu bu baax da di ko woo ci bis boobu di nuyu bu baax ak woo sëñ Xaadim Gay bi nga xam ne mooy sëriñ Moustapha Gay xalifa sëñ Moustapha Gay di nuyu waa kër sëñ Modou Gueye jëmmooy ak di leen woo ci bis boobu waa kër sëñ Baari Xari Fall di leen woo ci bis bi waa kër sëñ euh, Balla Awa Ndiouga waa kër sëñ Modou Fati Ali ak ñëpp rek waaw di di leen woo ci bis boobu bis ba nag bu ci eggee jàmm ca bis ba am na waxtaanu diine woo xam ne dañ ko def ci ngoon gi sëriñ Moustapha Bachirou Lo ak sëñ Gana Mesra incha allah ñooy taxawaay taxawaay yu waxtaanu ca bis boobee kon ñoo ngi woo ñëpp mboo mboo yi di Euh, ñi nga xam ne ñoo bokk moog sëñ Mat Lamine Gueye ñoo bokk lu mel ne waa gàdd Ndemba ca maam Modou Karim Gueye bi nga xam ne moog sëñ Mat Lamine Gueye ñoo bokk ndey ak bàyyi di leen woo ci bis ba di tamit waa ka sëñ baay Sayar Gueye sëñ Cheikh Gueye nekk ca boobu ba ñoo ngi koy woo bu baax euh, di nuyu di woo ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu auzu billahi min cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak si sant di mbooleem ñi seetaan ci biir réew ak bitim réew di nuyu bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal bu baax njabootu sëñ ma Lamine Gueye gépp kenn ci bopp di sëriñ Xaadim di ko ñaanal mu yàgg fi di ñëw fii ci kër sëñ di ñaanal bu baax sëriñ Moustapha Gueye mi nga xam di woote bis bi ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu sëñ àll gépp di nuyu mboolem taalib yi fi teew yëpp di yëkkati suñu kaddu ci ñi nga xamante ne bi ñi ngi dégg suñu kàddu te ne ci biir réew mi ak bitim réew fi ñu a nekk mooy bis suñu àll min ngay rahmatullahi alayhi nga xam ne amuñu lu dul moom mbooleem koo xamante ne bi ñu ngi lay woowee suñu àll tudde la ko loolu yaakaar naa bis bi war nga cee feeñal sa yéene bu baax a baax ndax loolu ab cër la ndax tuddalee nit ku baax moom la say waajur juree mën a tuddalee nit ku baax loolu ab soññe la ci ne yow da ngaa war a war a jéem a góorgóorlu te it euh, mboolem koo xam ne tudde nañ la ko it yaakaar naa foo mën a dem da nga ko sagoo da nga ko tiitaroo ndax foo tuddee ñëpp xam ko kon nag loolu ñu ngi ciy soññ boolem koo xam ne rek sawtur sëñ Alamin la ñu ngi la ci soññ bu baax a baax a baax te xam ne sëñ Alamin defal na euh, dama jël la sax mboolem ku bokk ci moom waaye ñi bokkut ñoom am na ñoo xam ne lebal na leen loo xam ne ba tey fayaguñ ko ko te it loolu yaakaar naa ci bis bii ci lañ ko war a mën a faye ndax ginnaaw nekkatu fi liñ man ci lu baax muy jàng alxuraan wala ñaan wala taxaw ci niñ ci war a taxawee ñi def ko niñ ko war a defee te lépp ñu defal ko ko mu doon addiya yoo xam ne dana ci mën a jot fa mu nekk ndax ku ne xam na ne jàmbaar la woon yoo xamante ne bii bëggutoon yaafus kon nag ñun nañ fexe ba ñun tam lii nga xam ne moom lañ am di ko ci defal nañ fexe bu ñu ci ken man lépp luñ ci man nañ ko defal te jëmmi Sëñ Tuubaa tax ñi ngi soññi mbooleem fu suñu am àll fu àll mi nekk ci biir réew ak bitim réew ak foo mën nekk rek ñu ngi la ciy soññ bu baax a baax a te di la ci woo nga gën cee góorgóorlu te xam ne kat boo ci defee dana dem boo ci defut dana dem boo ci jàppee dana dem boo ci jàpput dana dem hmm. te dañuy wax ne bëri ko ci moom da nga ciy teg sa loxo rek boo ci loxo da nga bokk ña ca ña ca jàpp te lu mën a doon nañ fexe ba lii ñu jàpp ci taxaw ci niñ ko niñ ko war a taxawee ndax sëñ Moustapha moom li man mooy woote woote nag boo ko defee nit ñu wusi la bu ko defee nag léegi la cay des nag mooy ñu jàpp ci euh, muy taalibe yi muy xarit yi muy soppe muy am di jàmm yi jàpp yi ñun ñëpp rek euh, xam ne lii képp ku ci def sa bopp nga ko defal defaloo ko suñu àll ndax suñu àll moom li muy am am na ko ba noppi te dootu ko ñàkk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen mbokki taalibe yi fi daje mbokki yi nga xam ne nii ñoom mbokki ngayeen yi ak mbokk yi nga xam ne nii dañuy dëkkandoo ñoo ngi leen di nuyu ni ñu leen di nuyoo nag buñ taxawee fii ngeen jàkkaarloo war ngeen a xam ne dana am kun fàttaliku ki ni fàttaliku nag mooy kan mooy Serigne Alamine Gaye Serigne Alamine Gaye du koy gaynde la yore woon wéet du ko te xeex benn bis Serigne Alamine Gaye fit la am sëñ Alamine Gueye dafa tabe sëñ Alamine Gueye jàmbaar la joo xam ne ji ku ànd ak moom doo nekk yafus noo ngi leen koy fàttali bu ngeen nu gisee war ngeen a xam ne ah, nan ko daan defee rek démb ak bërki démb noonu lañ koy defee nan góorgóorlu te takk ndigg yi bu baax a baax a baax a baax ab taalibe day soññee fu mu toll nani soññee nan te ci suñ biir te fas yéene doon ah, rek ab taalibe jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum axusu billahi min aseytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuho mbokki jullit yi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Alamine mi nga xam ni moo toog jàkkaarloo ak yéen mu mel ni bu ñu yëkkatee suñu ndigal suñu kaddu ci ndigal rek lañ ko teg waaye Serigne bi ñu ngi jéggalu bu baax toog gi nga xam ni toog nañ ko fi sa kanam di yëkkati suñu kaddu dadi nag ndigal moom la sa waajur bu baax wa daan wax rek ni caabi la bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi kon loolu rek moo waral kaddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati yëkkati bi nag yaakaar naa ni bu ngeen gisee jataay bi kenn du ni bi woote lan la woote bi li ko waral mooy bis boo xam ni moom la ñu dëgmal muy bisu suñu jàmbaar ja suñu sëriñ ba di sëriñ Alamine Gaye ak mbooleem njabootug Cheikh Mouhamadou min gay mu baax ma bis boobu moo jug dëgmal si sëriñ bi di ko woote fii ci Touba Daaru Xuddoos mu mel ni kon woote bi mi ngi jëm ci mbooleem taalibe yi nga xam ni si ñoo aju ci sëriñ bi rawatina dongay laxasaay yi nga xam ne ñoo tarbiyewu fii ci kër sëriñ bi te sëñ Mor Fatick Gueye mi nga xam ni moo doon wax léegi bokk ci jëwrin yi kon ñu ngi tàmbalee foofu soññee bi di leen woo bu baax a baax dongay tarbiya bi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew nañu xam ni seen bis agsi na ndax dongay laxasaay yi mënee su leen a ñàkk soññi ndax sëriñ bi daf leen a jox lool gëdd ci bis bi daf leen a jox gëdd lool ci bis bi la ca jiitu mooy ñoom de nattabliwul kenn nattabliwul ni ñoom dañoo takkoon seen i laxasaay ànd ak sëriñ bi lu yàgg ba am na ci ñoo xam ne sax fekkente nañ ak Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ci daara ji kon sëriñ bi mi ngi leen di soññ bu baax ci bis bi te xam ne ñoom ràññee nañ ci lool seen i taxawaay kon nañ dolliwaat pas-pas bu baax a baax a baax te xam ne bis bi amuñu lu dul moom. nee na mi ngi leen ci woo bu baax a baax fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew nañu waaj bu baax te xam ne bis mi dëgmal si na. la ca dolleeku mooy ñu ngi woote tamit ci turu mboolem daayira yi nga xam ne si dañoo aju ci sëriñ bi ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew nañu xam ne bis bi agsi na muy le 16 mars ñu ngi woo daayira yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew kon nañu waaj bu baax a baax a baax te xam ne bis bi agsi na kon daal sëriñ bi ñu ngi am tawfeex bu baax a baax ci toog goo xam ne toog nañ ko fii di woote bis bi bis bi nag li nga xam ne si moo ci jiitu ñi ko ñi ma jiitu woon ñëpp wax nañu ko muy ñu dolliwaat pas-pas yi dolliwaat pasteef bi bu baax a baax a baax ci lépp loo xam ne rek mooy bëggug sëriñ bi te bëggug sëriñ bi mooy bis bi mel noo xam ne si mësu koo mel guddeem ak bëccëgam saa bu nekk ci loolu lay soññee di ko wax fu mu mën a toll ñor na ko lool kon nag ñu donga yi nan takkaat sunuy laxasaay te góorgóorluwaat te xam ne sëriñ bi moom bis bi àgg na ko foo xam ne sax lott na ci aw làmmiñam di ko wax waaye na ku xool ni muy doxee ak ni mu ciy waxee nga xam ne bis lu ko ñor la kon nan góorgóorluwaat takkaat sunuy laxasaay fexe ba rek bi lépp loo xam ne defar nañ ko nu fexe koo yokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. kaddu soxna Ndeye Gaye moo moo ma yónni mu ngi woo képp koo xamante ne bokk naa ak moom sëñ Alamine Gaye ak ku mu bokkal sëñ Lamine Gaye mi ngi lay woo ci bi nee nuñ ko daa taxawee muy rafet nañ ko taxawee nu ko gën a rafet ndax nee na kat amuñu lu suñ seen waajur yi sëñ Alamine Gaye rek lañ am sëñ Alamine Gaye mi ñu am nag nee nuñ ko liggéeyal rek defal ci lu rafet duyut nee na mboolem ku bokkal Serigne Alamin Gaye mi ngi lay woo te nee nañ dëkk te ñun ñëpp nañ tokk te nañ taxaw te taxaw ci gannaaw Serigne Moustapha ba lu wàq nañ ko suul nee jigéen ga di woo nag mboolem waa kër Serigne Gaye ñëpp di woo sëñ kër waa kër Gaye jigéen ña soxna Ndeye Gaye ngi di woo waa kër Serigne Sayer Gaye di woo di woo kër Serigne Baari Fatim Mbooj bayut kenn jigéen ñi ngi leen di woo Kumba Fall nag man maa la woo ci sama tur nga jiital daayira bi yëpp te nga teel ñëw te ànd ak ñoom te la di woo képp koo xamante ne waa daayira bii nag soxna Njóoba Kan mi mi mi ngi may yónni moo soxna Ayda Kan di woo waa keneen ñi nañ teel a ñëw te nañ a taxaw ak waa jëmo ñoo ma ko yónni ñoom dima ko wax ñi ngi woo ñëpp bayuñ kenn fàttewuñ kenn bayuñ maa ngi di woo yéen waa koñ bayuma kenn ka ci gën a mag ba ci ka ci gën a ndaw woo naa ñëpp muy góor muy jigéen muy mag woo naa ñëpp na ngeen wuy sëñ Moustapha te na ngeen ñëw taaw ci liggéey bi te na ngeen ñu ànd ak maa ngi woo ñëpp maa ngi woo nag sama bokk Dóoru Ndiaye bayu ma kenn yéen ñëpp maa ngi leen di woo soxna Mbène Mbacke damaa yónni ci mboolem koo xamante ne kii bokk nga ak sëñ Baara ku bokk ak sëñ Baara rek rek day mi ngi lay woo ci màggal gi rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom la bokk sëñ Amet nee na képp ku di Mbacke Mbacke te nga xam ne bokk nga ak moom te na mi ngi woo képp ku di Mbacke Mbacke nee nga ñëw fekk si ko fii ànd ko moom ak taalibe li rabbil baxl karim sugri bila hisaabin wa bi xayrin magri sugri soosiro sugri bila sikaayo saismatin min jalibin nikaayo saka soosiro jami sakirin bil xalbi taarikan li sori naafirin labani al jamil wa wasama bima ma musa qablu fama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 ci seen jataay bu tedd bi ak pas-pas seen pas-pasu rëy yi di sant ñépp ñu fi jël kàddu ndax kenn ku nekk wax na rew xam ne euh, mënoon naa cee bañ a teg dara waaye xëy na seenu xër kese la kon nag bu ma leen sante gërëm leen yéen ñu fi gël kàddu ñëpp ci kàddu yi ni mu rafete ak ni mu matalee maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax euh, gannaaw loolu nag di nuyu hmm, ak a siyaara ak ñaan ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa sénéral du Murit yàlla na ko fi yàlla sama borom bàyyi te sàmm ko te xaar ko te yéeneem digganteem sëñ Touba yéeneem digganteeg taalibe yàlla na ko sama borom jox kàttan gum ko xàggalee. Euh, di nuyu euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha sama kilifa gi nekk gi dox sama digganteeg sëñ Touba di ko siyaare di ko ñaanal yàlla sama borom bàyyi ko fi yéeneem. Eh, ci seen eh, ci ci ci ci ci digganteem ak maam ju tedd ji ak bàyyi mi tedd ak maam yu tedd yi ak taalibe yàlla nañ ko yàlla defal kattan gu mu ko mënee. Eh, di dikk ci kër gi muy kër see Ahmadou Lamine di siyaare sama kilifa kilifa kër gi sëriñ Xaarim Gaye di njiital kër gi yàlla di ñaan sama borom yàlla ba sama borom bàyyi ko fi. sàmm ko xaar ko yéeneem noonu ma ko waxee yéeneem ci njabootu sëñ Mad Lamin yéeneem ci taalibe yi yàlla na ko yàlla sama borom may kattan gum ko xàggalee di nuyu euh, bu baax a baax a baax a baax ñi ma bokkal kër Cheikh Amadou Lamine euh, xëy na ñu fi jaaroon ñëpp tudd nañ ko muy kër Cheikh kër Serigne ma ñaaw euh, kër njiit la di Serigne mm, maam Cheikh ak i rakkam kër Serigne Thierno Serigne Seexuna ak i rakkam ak ñi nga xam ne ay jigéen lañ ci kër sëñ la Lamin ñooñu ñëpp ku mel ne soxna Aminta gay sunu bàjjan soxna Jëmb gay sunu bàjjan ak ñi nga xamee ne ñëpp yàlla boole ni leen ci kër gi ñëpp maa ngi leen di siyaara te di leen ñaanal képp ku nekk barsàq sa borom defal la fa jàmm sa borom yokk yërmande ci ñoom ñi fi nekkit sa borom bàyyi leen fi teg leen loxo defal leen li nga xamee ne moo gën ci ku fi nekk muy siraatul mustaqim euh, di Eh, di leen fa eh, jottil ay kàddu tuuti ci bis bi nga xam ne moom lañ jublu muy fukki fan ak juróom-benn ci mars te tanu taxatu mu tax noo toog fii eh, di di ci jaawlale ay kàddu ñu xam ne bis bi lu ma ñor la ni ma ñore it loolu leen ñore bis lu rëy la ci man lu rëy la ci yéen lu am solo la ndax day jëmm joo xam ne teguma kenn ci sama kanam Euh, euh, euh, sama sama digganteeg moom teguma kenn ci sama digganteeg sëñ Alamine ndax dafa am melakaan wu ma xam ci moom boo xam ne doy na ma sëkk sama digganteeg moom waaye doy na ma sëkk sama digganteeg sëriñ Touba ndax yàlla dimbali na ko ci daraje sëñ Modou Lamine waaye yàlla dimbali na ko ci daraje sëñ Modou Moustapha defal ko ay defin yoo xam ne ku xam sëñ àll xam ne ku yàlla dimbali la waaye ku sëñ Modou Lamine waajal la ba ba ba ba jaarale ko fi mu ko jaarale ba yàlla sama borom dogal ci moom li mu dogal ci moom euh, kon nag bis bi mi ngi ñëw euh, li ma ci bëggit mooy jàng alquranul karim jàng xasiida des li istixfaar la lépp loo xam ne mën naa jëriñ ku nekk yowmal xiyam loolu rek laa ci soxla li ci des mooy ay berne te daj ku dajale ay nit berne leen ndax berne ci liggéey bi la bokk kon nag Euh, maa ngi ciy soññi ñëpp di ci woo ñëpp képp koo xam ne mbokkum sëñ Mat Lamin la képp koo xam ne euh, taalibi la ak noo bokk ci kër gi ak foo mën a bokk ci kër gi maa ngi la ciy woo ak ñi nga xamee ne ay wëlëre yu sëriñ Alamin lañ wala ñu ay bokkam wala muy euh, nu mu mën a doone rek maa ngi ciy woo ñëpp bis bi nag danaa leen ci wax loo xam ne sëñ Alla moo ma ko waxoon dafa am benn bis boo xam ne ñuy ñaanal fii Cheikh Amadou Lamine Euh, ba digg bëccëg sëriñ àll woo ma fii ma dikk toog mu ne ma Moustapha ma ne ko mbake mu ne ma samaam day koo fi gis ñu di ko defal ñu di ko tiraangal gënu koo yeeyoo samaam wala samaam gën ko koo yeeyoo sëñ ma ko wax ci ci ci ci ma jàkkaarloog moom koo fi gis ñu di ko defal teraanga euh, gënu koo yeeyoo samaam wala samaam gën ko koo yeeyoo daan ne ma Moustapha ma ne ko mbake mu ne ma melal na ko yàq nii la ma ko sëñ àlla waxe woon dugal melal na ko yàq ci fitna la ma ko waxe woon ci melokaan la ma ko waxee kon booba sëñ Madu mi lañ ko doon defal sëñ àlla dugg ci woon waaye tey euh, sëñ àlla ngi ci booba sëñ àlla ngi ci biir ak njabootam gépp ne mel na ne tey mboolem ñu daa tudd ci ay doom di doom yu di doom jigéen kenn nekkatu fi kon ay sër rek fi nekk kon te njaan gi ci sëñ Madu Lamin la ñu ko dale ak njabootam yi topp ci ñoom ñëpp ak sëñ Tuubaa mi nga xamee ne mooy sunu yaakaar mooy sunu lépp ak njabootam yi topp ci ñoom ak taalibeem yi nga xam ne ñëpp ñu ngi bar sàq te parce que ni ma fase bis bi nga xam ne noonu laa ko bëggee ba ma sañoon buñ àggee ci bis bi mboolem ku nekk bar sàq yëg bis bi ci ci ni nga xamee ne defin wi saa borom nangu ko nangoon woo xam ne kenn ku nekk da nga ca jëriñu loolu mooy sunu pas-pas loolu laay soññee lool laay wootee woote wuñ lenn lu jëmul ci yàlla yàlla rekk nu tax a woote te li ni woote sañ nañ ko ndax diine digal nañ ko ndax nit amee kilifa mu bàyyi ko fi dem bar sàq sunu borom digal na la nga dee ñaanal sa waajur ndax ñaan gi obligatoire la te nit ki bu nekkee bar sàq nga di ko ñaanal moom it mu di la ñaanal kon nag nañ sàq ci diw ñaanal ñi nga xamee ne jiitu nañ nu bar sàq ñoom itam nii du ñu ñaanal euh, euh, lépp nu nu nu nu nu nu gën a góorgóorlu daal te xam ne mboolem yéen ñi fi teew ak ñi fi teewut fu waay mën a nekk ak fu mu mën a doon ak barab lu mu jege-jege ak lu mu sori sori na nga xam ne Moustapha mel na ne yow lay waxal maa ngi soñu ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal euh, njabootu sëñ ma Lamin bàyyiwuma ci kenn jiitaluma ci kenn teg ci kenn ñëpp laa ko sant ñëpp laa ko ci woo Euh, ñu bokkandoo ko àndandoo ko defandoo ko ci ni mu gën a rafete ci ni ko yàlla digle ba lépp ñu tàmbale ko ci bisimilah mu àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina yàlla na ko yàlla defal ñu ta noonu ma ko bu ko defee rek euh, kenn ko nekk euh, sa njariñ na ci loolu laa woote kenn ku nekk sa njariñ na ci nekk njariñal diine nekk njariñal ak taalibe noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séentu ñëpp bu bisma ba tey woo tey tey xam la ne sëñ àlla ku yaataloon na dëkk bii def na fi lu jeex képp koo xam ne mas ngaa jëflanteeg sëñ àll ci lu baax boo ma xamee ak boo xamut maa ngi lay woo ci bis bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi woote baa ngi noonu kenn bàyyun fenn bàyyun ñenn mi ngi woo ci ay yi mbooleem njaboot ak Serigne Touba gi tàmbalee ko daara Xuddoos kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Moutada kër Soxna Faat ja ba ci kër Soxna May mbooleem seex yëpp mi ngi leen di woo ci leen koy fàttali rawatina ñi nga xam ni ñoom la bokkal biir kër Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi leen ciy woo di ci woo nag mbooleem njaboot ak sëriñ Modou min Gaye gépp bàyyiwul kenn waaye tam di ci woo mbooleem ay rakam rawatina taalibe yi ak daayira yi képp kuy wax asadoon laa ilaaha illallah mi ngi la ci woo bis bi bis bu ñuy sant la di ci fàttaliku di ci ñaanal sëriñ Alamine Gaye ak sëriñ Modou Lamine Gaye Firdawsi ak mbooleem njabootam gépp bis bi nag mi ngi nekk fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars gi la le 16 mars incha allahu rabbi ajuma jë ko jiitu dinañ fi amal conférence bu am solo boo xamante ni sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine moo koy def ñu waajale ko bës bi ci dund ak jaar-jaari Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye ak sëriñ alamin Gaye ak njaboot ak sëriñ Touba gi suñu xëyee nag jàng alxuraanu karim xasaayit istixfar salaatu ala nabi basmala ak mboolem xeeti jaamu yàlla yëpp ba ba ba ñu daal di berndeel mbokki taalibe yi julli suñ jullee wéyal siyaar yi ba ginnaaw suñ jullee tàkkusaan ba pare nag ci la ñu amalaat waxtaanu am solo woo xamante ni Serigne Moustapha Bassir Lo moom Serigne Mbacke Mohamed moo koy def ak Serigne Gana Messere Makhtar su ko defee nag Serigne bi daal di yeewee mbokki julli ak mbokki taalibe yi ñu joxante waa dox daje incha allah rabbi ba déwén ak jàmm incha allah kon mbokki wote baa ngi noonu bàyyul kenn bàyyul fenn bàyyul ñenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu